jaajëf mbokki téléspectateur la RTT TV amaan nañu mbégte ak kontaan di ñëwal leen fii seen émission 100 pour 100 foot tey ñu décentralisé ko ñëw fii nga xam ne moo di Medina Fall fekk si fi coach Badou coach FA waaye laata loolu nag dañuy daal di dalal président FA waxtaan ak moom président ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen nuyu leen di leen ziara. di leen di leen masagu ci coono yi. alors euh, président en tant que FA. en tant que président FA naka ngay gisee ñi nga xamante ne nii ñoo di say joueur ak sa staff. waaw suñu joueurs yi de booy ñun. ñu ngi ci ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax am ci ñoom yaakaar. Mhm. te itamit nag di woote ku ñu si jàppale ko bu baax a baax ngir ñu gën a mën a jëm ci kanam daal. ci aide mhm, waaw ci côté boobu surtout boobu. Mhm. waaw parce que fi mu nekkee dafa xaw a ruqe itam. Mhm. te xam nga xale boo ko yoree itamit coono yi ci nekk ak yooyu di nga soxla ay ndimbal. ñu ciy woo ñëpp pour ñu jàpp ci daal bu baax a baax. alors pour intégrer ci linga nga xam ne moom moo di IFRA naka nga war a mën a def pour mën ci intégrer. parce que dina yomb. non du jafe du jafe. du jafe yëkkatil micro bi nga. waaw du jafe du jafe. du jafe. Mhm. kon tey ku jógoon ci yeneen dëkk yi pour war mën a intégrer war naa mën a yomb ci EFA. waaw waaw war naa mën a yomb dina yomb. Mhm. waaw di leen jàppale ci ki di leen yee ci lu bëree bëree bëri. Mhm. ngir ñu mën a jëm ci kanam daal. lan mooy projet li nga xamante ni moo di président EFA. waaw ñun de danoo bëgg xam nga fi ñu toll nii xam nga. suñu doole demewul noonu. mais nag dañuy ñaan yàlla. fas yéene daal jàpp ci équipe bi ba nga xamante si dinañ si dégg ay champion yoo xamante ne si. si hmm, équipe nationale. alors gannaaw bi ñu ah. jógee ci président EFA ñu ñëw fi ak ki nga xam ne mooy capitaine wu EFA capitaine ñu ngi lay nuyu. maa lay nuyu capitaine naka ngeen di dundee ak président ak entraîneur ak EFA ci entraînement yi. entraînement yi ñu ngi siy dund mbégte bu baax. Hmm. si yëg si yëg bu baax. bëgg hmm. bëgg sori trop. ci mhm. affaire yi. seen relation ak coach ak seen relation ak président est-ce que yomb na ak yéen ci seen biir entraînement yeeg ñu jëme jëme relation yi moom buñ ko respecté rek affaire moom dañ koy respecté rek. dañ koy respecté daal mais est-ce que booy ñu ngi respecté consigne waaw booy ñu ngi respecté consigne bi. Mhm. déglu li leen wax baax. ñeen a ngi faral di jouer championnat. championnat moom si. joué ngeen championnat. tey booy lancé appel ñi nga xamante ne ñooy say morom yi nekk ci biir FA ci biir lan nga leen di wax. mooy wax leen ñi gën a góorgóorlu gën a fas jom. Mhm. xam ni affaire bi si kanam na rek. Mhm. di si ginnaaw di si ginnaaw dañ kay bàyyi mu wees. Mhm. waaw est-ce que entraînement bi ak coach bi yomb na. entraînement yi moom ñu ngi si rek des fois coach yi ay kii yu tar de. affaire yu tar ay physique yu métti sax. mu ngi def physique yu métti daal. waaw dañ koy gëm rek jàll. na ngay lancé yeneen école de football yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi seen ginnaaw di leen suivre. gars yi moom dañ leen wax ñu yokk jom rek. Mhm. xam ne moom affaire affaire. Mhm. dañ koy xool si ku mel ni Sadio Mané. Mhm. Sadio Mané koo xam ne Bambali. sori na trop. mais daa génn. di sacrifice wu daal waaw. ku mel ni Cristiano Ronaldo. ñoom ñëpp. mais fas jom moo leen may li leen may nii. ok ñu ngi lay jaajëfal bu baax capitaine. ok jaajëf ñu ngi nii ak ki nga xam ne moo di coach Badou ñu fas yéene waxtaan ak moom coach FA coach maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar. Euh, alors coach tey ñu ngi ñëw fii nga xamante ni moo di FA fas yéene waxtaan ak yow alors naka ngeen di dundee li nga xamante ni moo di entraînement yi. waaw ginnaaw bi ñu yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur. ñoo ngi sant délégation bi fi teew. Mhm. di nuyu tamit euh, seen téléspectateurs yi nga xam ne dañuy seetaan di leen topp saa su di xam ni tamit euh, di remercier tamit le président Seck mi nga xam ni ñun moo ñu jiite. Mhm. parce que moom kuréel bi mu jiitee mhm. man ci laa bokk. Mhm. xëy na yàlla dafa dogal man ma féete côté espoir bi mais. téer laa comme ni moom comme télé bi tamit euh, télé téer yi kon gëm naa ni man mii tamit ci laa bokk ci laa bokk di remercier tamit taxawaay bi mu ci am surtout tamit yooyu tamit bi mu la booleeg man ba léegi tamit. yendaloo loo fanaanoo à chaque fois ñoo ngi déggante. Mm. dama ciy tegal lu lu rafet daal. Mm-hmm. voilà alors coach bu ñu ñëwee seet si la nga yore li nga xamante ne moo di xale est-ce que mm. yore xale yomb na. non yombul. Mm-hmm. yombul parce que mm-hmm. liñ naan tout début est difficile. surtout maanaam ci côté xale moom. yombul ko parce que da ngay gis lu nga gis daal mais bu yàlla yàlla dénkee xale da ngay boole muñ rek. waaw muñ daal laa dëkke waaw. mais est que ci biir muñ boobu ak xale yi nga xamante ni yor ko dafa jafe. Mm. es ce que tey jii li nga leen conseils yi nga leen di jox. Mm. yomb na pour ñu koy jafe. non du yomb parce que des fois nag nga daje cee koo xam ni. mu xaw a yomb ci nga am ci satisfaction parce que mm-hmm. parent man na daje yow ni ah sama doom kat gis naa ci moom loo xam ne mm-hmm. changé na. te nekkul woon ci moom waaw parce que man dama leen exister. Mm-hmm. li ñuy bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg fubal man njàng mi laa leen di gën a instauré. Ah. parce que dama leen di wax ni ku ci amul moyen. sport étude. waaw sport étude. Mhm. parce que jamono day dox. Mhm. te fi mu ne nii gars yi football bi même boo amul boo amul yenn diplôme doo ko def. comme Amérique boo amul bac doo def mhm. sport. doo def sport Afrique ñoo ngi ñoo ngi jël slogan boobu. ça fait partie dans le ma ngoog léegi bokk na ci monde sportif léegi ku amul bac wala ku amul yenn moyens doo doo sport. kon ñoom mieux vaut ñu teel a jàng comme yàlla na leen ñu mën a football. bu ñu amee bu ñu amee bu fu ñu bëgg a dem ci football war nañ faa mën a àgg. Mhm, mais heure jàng ak heure football est-ce que loolu aussi tamit nga boole ko dina xaw a waaw mhm. mhm. matin wala samedi soir bi ak dimanche matin la ñuy entraîner waaw à part les mais est-ce trois jours yooyu aussi nga entraîner ci xale bëgg ci def dara ci moom est-ce que loolu aussi dina xaw a dina yom dina yomb ndax ñoom bëgg-bëgg bi moo ne ci ñoom. Mhm. pour nga jàngaleen benn affaire rapidement ñu capturer ko rek day daal mhm. waaw moom ñoom boo xoolee maa ngi archive yoo xam ni biñ fi doo a commencé la. Mhm. ça fait presque léegi ñu dugg suñu un an. ba léegi ñi nga xam ne maa leen doon takkal daal mhm. di woon ni takkee laacé mhm. ñii maa leen doon solal dosaar mhm. di léegi fi ne nii ñoo xam ne mënuñu woon contrôler fi mu ne nii su ma leen joxee ba man damay am satisfaction man si sama bopp man parce que ne def am na am na am waaw am na def trois jours yooyu rek laa leen laa leen école de football bi depuis kañ nga ko créé mois euh, de juillet bi passé mois de juillet bi passé kon période nawetaan amagul sax at Mm-hmm. waaw mais du tee tamit dañuy génn di compétir def ay match d'entraînement yenn saa ñu dem benn ñu invité ñu fenn ñu dem mais mm-hmm. damay dem damay am li ma bëgg parce que kon kon école bi amagul at danaan la déedéet ndax mm-hmm. tellement que talent yi fi ne voilà mais est-ce que yaa ngi participer ci li nga xam ne moo di championnat waaw championnat comme comme comme la ñuy doog a kii koyef bëggoon nañoo bokk demoon ba bëgg a a bokk mais après ma xam ni dara jarul yàkkamti mm-hmm. naa gën a travailler mm-hmm. ma gën a travailler d'ici un an deux ans peut être su bokkee nan xam ne kii lii moo taxoon mu doon xaar pour mën a bokk waaw parce que bëgguma fay dem di def di wane yaafus daal parce que man góoma lool man même bi may football loolu laa gëm damay xool équipe bi man mm-hmm. ma contrôler dem ci équipe bi mënul su ma demee ma wane sama bopp mais est ce que toog di xaar tamit ba def benn at un an deux ans est ce que doo egg tamit fekk yeneen centre yi nga xamante ni ñoo fa nekk raw la non du parce que li ngay travail yow. l'essentiel hmm. teg ko ci taal bi ba commerçant boo gisee mën ko utiliser. dina ko man loolu laa ci laay dox. man sama marchandise moom na jar rek. wala ku ma seetaan xam ni kii am na lu mu def ci booy te hmm. gëm naa ni ñi ñëw di seetaan à chaque fois saa yu ñëwee li may dégg mooy booy yi ñoo booy yi ñoo kon su fekkoon lu may naxe la lu may def ci ñoom loo xam ne lu leen taal gën a kon yaakaar naa ni genn yaa ngi am ak contact ak yeneen école de football yi nga xamante ñu ngi nekk biir Thiès wala hors Thiès aussi. Hmm. ngeen di def ay collaboration di def ay match d'entraînement ak yooyu. waaw waaw ñoo ngi def xam nga moyen moo amul parce que di déplacer équipe. Hmm. lu tol ni FA. Hmm. parce que mën naa ni plus de booy xool trois catégories nga yor leen. des fois nga bëgg ñëpp dem. ISEP bii rek wala CNES bu ñu fa bëggee dem tey jii problème lay nekk. parce que il faut que wala day yoo xam ne dinañu kenn dinañu jël.

moom dina da ciy jàpp Modou Koumba le président Modou Koumba moom nga xam ni moom euh, kenn demul mu des day jàpp ci bagage ñoom Baye Serigne. moom presque mën na ni terrain bi bu yàlla dogalee ñu fi entraîné moom moo tax ndax moo ko defar ba mu mel nii ba pare jox ni ko fi ne terrain bi kuñ fi fekk day mel ni ñun ñoo kon terrain bi de EFA moo mhm. amuñu

barki dem dama leen dóor ba dañoo bàyyi déem ñu dóoraan ñoom ñoom ñu bàyyi waaw te te ñoom ñoo ma daan dóor kon noonu lay demee rek yaakaar naa ne fur et à dem ba ñoom day day xaw a day doon la ñaata a ràññee ci. bon am na am na U10. am na U 13 14. Mhm. am na 14 ba 16. Mhm. ak ñu mag ñi nga xam ne 20 20 la 20 20 20 20 laa ko kale. parce que mu nekk trois catégories daal. 20 mhm, 20 waaw 20 20 20 20 jëm suuf quoi. U 20 daal moo koy yemale voilà U 20 laa ko yemale quoi. léegi ban ban mu ëpp lu mu ciy compétir ak yeneen équipe bon man naa ni man su may jël match d' entraînement ñaar ñëpp. ñaar da ngay naa leen di jaxase i morom dañuy jouer ak seen match dañuy jouer seen i morom waaw mhm. gis match a ngi ciy gis seen bopp ñoo ngi ciy gis suñu bopp parce que booy yi bëgg nañ ko ñëpp mhm. nii rek ñoo ngi wax pour ñu ñu defal ay yeneen match d'entraînement ma leen amul benn problème dinaa am ñu may contact parce que am na ñu ma booleel fële ñuy wax euh, mooy équipe bu Cheikh Cheikh Cheikh Mbeng bi centre bi. Cheikh Mbeng Mbeng waaw. am na benn am na Kër Ma Maram. ñoom it kii ñoo ko moom waali ñoom ñoo ko fa euh, sam. waali daani voilà ma ngoog. Mhm. ñoo ñëpp ñoom daal pour ñuy bëgg ñuy jàppale ñuy may ñu ma ah, comme man yàlla na football naa fu ne mhm. jaraaf maa ngi def ay contact mhm. AS Pikine maa ngi def ay fa parce que yooyu yëpp jaar naa fa xam am na leen loo xam ne naa ko ñoom bëre su ma ko bëggee wala su ma amee test boo xam ne ñoom ñoo ngi koy def ma soxla samay jour wala ma ma man faa dugal benn nit wala ñaar man damay damay damay damay damay damay yóbbu samay jour dem may ko may may leen sens mm-hmm. alors Alpha bi nga koy créé lan moo taxoon nga waaw xanaa en tant que joueur wala da nga toog nii rek waaw non waaw waaw comme comme man li tax ma gën ko man a créer parce que dama xam ni talent yombul mm-hmm. am talent mm-hmm. yombul kon bu la dëkkee koñ nga xool gis booy yu bari am nañ talent mais ku leen jàppale leen amul. ma jaar ci situation yu mel noonu xam ne man mii bu ñu ma jàppale woon xëy na ël na ma nekk premier professionnel bu nekk fii Médina Fall. Mhm. sama secteur. Mhm. su boobaa lu gën a garaaw lii sax mën naa am. ndax man boobaa mën nañu am ay structure yu baax ay stade yu baax ay centre de football yu baax mais ma dem ba xam ne man. xëy na ñàkk da moyen moo tax man ma ma ma dew ma léegi nag talent yi fay ne. pour ma jàppale leen man yow yaakaar naa loolu dara quoi. Mhm. waaw moo tax ma am initiative bu ne xaaral ma samp sama école de football. Mhm. jël booy yi fi ne tam xam nga inscription deux mille francs. Mhm. weeru dee mille francs xam nga loolu du fay. loolu pour jënd yi bal la jënd yi dosaar bal bu nee di euh, polo placeur affaire yooyu lañ ci wut matériel ba léegi doyul des fois kenn jaar fi may ñu dosaar yenn saa kenn jaar fi sànni ñu bal noonu laa fi nekkee waaw mais talent bi fi ne moom bëgguma mu yàqu comme ñun ñi fi jaaroon ni mu yàqoo ñoom bëgguma moom loolu dal leen moo tax ma jël ci samp ci sama xar ci sama tànk tubay nag lu ma jaral rek lu ma jig góobee gàtt pour pour ci ay ñi nga xamante ay Sadio maanaam ay Boulaye Dia et cetera. waaw parce que euh, booy xool man suma ma sañoon sax idole yooyu ci laay ci laay dox man. Mm-hmm. li may li may wax yëpp man sama idole mooy Baba Touré. Mm-hmm. Baba Touré bu GIA. Mbaye Touré di waaw Jeanne d'Arc waaw man man mooy sama idole parce que yàlla dafa def mu nekk gaucher ma nekk gaucher ma bëgg ko lool xaw ma sax moom mais man. Mhm. parce que seetaan naa ko benn final départemental Guédiawaye may def cadet moom muy def senior. Mhm. mais dama ko daan dégg sama ñoom papa affaire yooyu may seetaan ay archive affaire yooyu moom moo nekk sama idole ñii fii waaw ñii booy seet am na ñoo tamit Sadio Mané mooy seen idole am ni Pa ni Fadiga mooy seen idole mhm. genre yooyu laa leen jox mais bëgguma leen di leen jox ay turu turu turu turu mhm. ah, parce que dañoo war a gëm seen bopp mais est que di toog di leen entraîner taxaw gis ci benn joueur ci ñoom mu téebal nga xam ne Bento jàpp nga ne war naa mën a rejoindre en Europe. bari na fi. bari na fi am na ci boo yoo xam ne ñoo di football am na ci ñoo xam di biti ñoo xam man biir na ma ne ma ko defee buñ ci mm-hmm. ci concentré avant ñuy dem Europe dinañ leen dégg fii biir Sénégal. dinañ leen dégg dinañ leen leen dégg championnat dinañ leen dégg feneen. Mm-hmm. buñ ko gëmee nag ci kaw ñu gëm ko xam nag nit moom dafa lëndëm. Mm-hmm. mën na lay wan benn affaire nii ci kaw nii fekk au fond loolu nekku ci fekk nga gis naa fi ñoo xam ne di nga fi ñëwaat indiwaat télévision man la kii mii. Mm-hmm. bi ngay ñëw jour woon asif yaa ngi nii ko nga génne ko. moo nekkoon fii nga wane ko nga wane ko mu nekkaat côté dal côté ballon. est-ce que ñu ngi leen di dimbali aussi di leen dundal daal. waaw dimbali bi ñoom ñooy sacrifié ñoom ñooy sac ñoom ñooy ñoom ñooy sacrifié wu ñooy jëndal seen bopp ay dàll ñooy jëndal seen bopp seen i maillot xam nga fi mu nii ñoo ngi nii di joxe ay pour ñu jënd ay loisir yoo xam ñun ñëpp ñoo koy nuróole. bu ko defee ñun moom la ñuy sol di entraîner bu ñu ñëwee teg ci dosaar bu ñu paree ku ne yóbbuwaat sa maillot. kon EFA amagul loisir. amagul loisir mais ñoo ngi ci ñu ngi ci commande waaw ñoo ngi ci commande ñoo ngi ci commande mais pour l'instant nii dosaar rek moo fi nekk. Hmm. dosaar moo fi nekk. kon jàpp nañ ne daal balaa yàgg non bala ngeen fee ñëwaat buy ñëwaat gas fële leen koy yóbbu senef féegal euh, ISEP mhm. fa la ñuy defawaat reportage bi bu dee bu neexee yàlla mhm. lu yàgg dara ci kaw gason incha allah loolu waaw loolu leen bëgg bu départ di wax ni tamit euh, am na ay benn benn jigéen ñu fi ñëw tamit di entraîné di entraîné kumba ci mala ne dafa am dafa waaw Kumba nu mu amee amee ay ay ay jours. waaw waaw moom noonu la amee jour waaw moom. ay tigres daal waaw ma wax moom voilà mën naa ni góor ñi yóbbuluñ ko dara. Ah. fu ma dem moom laa njëkk a classé. Hmm. mooy sama numéro 10. mooy numéro 10 kon man kon war naa man a fubal. kon war naa mën a fubal bëgg na ko. góor ñi yóbbuluñ ko dara boo ko fekkoon fii muy fubal te ci kanam tuuti di nga ko seetaan dina dugg a fubal la nga du moom. Ah. waaw te jigéen la. Ah. kon EFA du góor ñi kese quoi. du góor ñi kese am na ay tigres am jigéen ñoo xam ne tamit euh, copté naa leen te dinañ ñëw incha allah. Mhm. waaw pour l' instant moo fi waaw. pour l' instant moo fi nekk yeneen joueurs yi. waaw moom boo ñëwee doo xàmmee góor ñi. Mhm. waaw waaw parce que boole ñaari ñaari ñaari yooyu aussi est parce que jigéen ak ni mu xawoon na. xëy na waaw ñoom bis bu ñu rek dama leen di génneel leen seen kii jéem leen a bokkal fenn même bu dul même bu fekkee tamit matul moom kese rek mën naa ko war a yóbbu teg ko ci loxoy maman Moussa Cissé bu senes ci jigéen ñi mu mën ko mu mën du ma ko bàyyi mu parce que xam naa ni talent am na talent waaw mhm. waaw nga ne dinañ mën a ko ci defa moom moom macha allah daal dañ ko ñaanal mhm. moom day football milieu soir mu def 10 soir mu def excentré Mhm. waaw ñaar poste moom macha allah moom waaw mën mhm. na séddale boo ko joxee mën na lijjanti moom mhm. waaw yaakaar naa ne loolu mooy jour waaw alors ñu daal fi nga xam ne moom la ñuy yëkkatee suñu jëraay euh, la sa kàddu gu mujj ko waaw kàddu gu mooy li ma ci commencement bi rek di remercier ñi nga xam ni biñ commencé ba léegi ku ci mel ni baay ma yoro ku ci mel ni bàcc dañuy bàyyi seen temps ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne sax limu ma leen ñoo fi ay ñoom euh, kii Baye Serigne ah ak euh, karaté la sax ñoom ñoom kii Fall Cheikh Fall booy yëpp dañuy bàyyi seen yite ñëw fii di jàppale booy di entraîné ak ñoom. di daje ñoom di bëkkante ñoom Modou Koumba xam nga chaque ngoon ñu may ñu ko. Mhm. loolu dafa neex. Mhm. di leen remercier ñoom ñëpp booy yi nga xam ne ñu ñuy àndal ñoom it seen copain yi bàyyiwul leen fu ñuy dem dañuy paas dañuy ñëw ànd ak ñun. waaw te football ñu football la ñu seen i dem des fois fi mu ne dem da ngay defe ni sax mooy dem mhm. parce que sa mag da lay sa da ngay ànd ak dem mhm. waaw ñëppay dem mhm. waaw kon damay sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan daal lépp luñ ciy di ko ci wut yàlla na ko suñu borom defal ñun ñëpp ñu bokk kenn bañ cee gis sa bopp mm-hmm. te xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mm-hmm. loolu daal la amoon lu ma ci wax sama dernier kàddu waaw di remercier ñëpp mm-hmm. kii Cheikh mooy suñu capitaine yàlla dafa dogal mu mu blessé xam naa léegi mu bu wéree day ñëwaat rejoindre waat groupe bi ñu nekkaat ci li ñu ko parce que ak football ñoo ànd mënut a ñàkk xëy na bu amul woon fii dina am feneen kon dañ koy sant yàlla rek waaw di ñaan yàlla tamit mu yem fi di wax euh, na changement bi mooy lan bu njëkk dañ doon def inscription 2000 weeru dee 1000 francs léegi inscription comme dem naa ba capté ba pare nit ñi intéressé léegi ku bëgg a dugg inscription 10 000 la ci ngay amee sa loisir sa lépp ñu ñoo la koy jox mhm. nga mhm. waaw léegi noonu la ma wax sànq mhm. fajul dara mais nag comme ñoom bëgg na il faut ma jàppale leen surtout nag li may gën a concentré mooy ku ci jàng ba ñëw compo damay xool say moyen boo amee moyen note bu baax ñu avancé defal nii wala defal naa mhm. bu ma sam bu ma say parents boole yow soo ñëwee dinaa la corriger boo def liñ bëgg di ko def wala man nga abal ma sama terrain mhm. parce que man loolu lay parce que ma yoree xale ba pare tardé man ba pare di leen tardé du ma ko def mhm, du ma ko kooku moo nekkoon ki nga xamante ne nii moo di coach Badou coach FA ñu seet woon ko fii ci Medina Fall